et chaque fois quoi Les euh, jeunes lañ fait qu'une une défense en place et le coach nous def ñu confiance tamit xam nga 23 euh, pour jouer la Coupe d'Afrique donc duñ def lu dul euh, déglu coach et voilà équipe défense bien qu'en en place nous si dara quoi donc dañuy def lu dul tant que coach sera là après Inch'Allah, nous ñu répondre waaw athlète là aussi c'est normal donc mais di ñaan tamit xam nga ñii di def liggéey bu baax rek parce que bu ñu gañee ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu waaw tout d'abord euh, yegg si si jàmm et ça se passe bien Alhamdulillah, am nañ deux séances démb ak tey benn et di préparer match demain bi incha donc euh, am si victoire euh, dinañu mettre en confiance pour mën a préparer match d'ouverture bi contre Tanzanie donc euh, voilà quoi nous na match ñu sérieusement Nous dañ motivés parce que c'est important tamit nous nga gis ne jouer euh, sur même poste bi euh, comme ni ko coach di sommes disponibles disponible pour jouer si poste bobu non. mais nous ñoy ñi démarrer ñun tam duñ def lu motiver pousser à ce que nous soyons qui soit bon pour match yi nous mëne gagner. tout d'abord une grande fierté parce que Sénégal est là après Sénégal a plus de 500 000 footballeurs. Euh, tey ñu ma bokk 23 yi nga xamante ne damay dem représenter mon pays euh, fierté bu maga mag la donc euh, def na lo xamante ni contentement la si man tamit di ñaan yalla aussi ñu dem aborder ko après sept matchs à jouer la yalla ñu yàlla defal jamm sept matchs ñu gagné ko si jamm indi coupe bi inshallah au Sénégal. waaw xawon metti décevant aussi parce que amon nañ amon nañ possibilité pour mën accéder jusqu'en finale même mais moi li ñu wax rek quoi football là xam nga de demee woon noonu dañuy def lu euh, tirer say leçons préparer CAN bi di ñëw parce que suñu pass euh, mu ngi suñu ginnaaw. waaw doon pousser équipe bi à ce que ñu gagner parce que euh, Sénégal mom bu gagner ñun ñëpp xam ñun ñëpp ñoo ci kontaan ba ñu perdre tamit daf ma metti won trop mais après xam football la quoi.